jusqu'au bout ñu ngi leen di ziar yéen Marème Faye Sall bi di ay preuve di génne ay preuve am milliards yi ñu sàcc loolu la ñuy ay preuve di wane ni askan wi lañ ko jox fekk na dañuy sàcc alalu réew mi ñu jël di ko sàcc yelwaane gi ñu yelwaane turu réew mi ci benn ci biti di ko yelwaane tubaab yeeg di ko yelwaane fu kenn xamul di tayle suñu alalu réew mi loolu la ñu bëgg ay preuve moo tax ñu indi fii ay brouette ay enveloppe naan ay demande la yow sa jëkkër jaay ñu Sénégal émergent yow sa jëkkër wax ñu ñun alal lu réew mi li ñëpp bokk ñëpp si jot bu si ñëpp jotoon bu fekkee nam ko waxe woon noonu la ko defe woon kon nit ñi daañu toll fii di wut ay di bind ay enveloppe ay demande sociale ah yéen ngeen jël alalu réew mi sàcc ga ay preuve ngay génnee pour ëllëg gis nga ñii daanu nan bu yàgg a yàgg a yàgg xam nañ ni askan wi nand nañ leen te seen kaw la lu jëm gis nga ni nu futtee maire bu Thiès be futtee que maire bu Ziguinchor ñoom noonu lañ leen di futtee seen tour mooy waaj ñëw seen tour mooy waaj ñëw yéen dafa ngeen ne bu ñu nekkoon ci réew mu normal daa jël sa demande sociale yooyu noonu nga xam ni askan wi ngeen nga ñoo lay ñaan ndimbal bu si boobu temps Farba ba a nga nee jël ay milliards Mame Mbaye Niang ngi ne jël ay milliards ah Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze milliards ah ngeen jël alalu réew mi accaparé ko di wax askan wee leen di laaj nan ngeen di def ba askan wi duñ leen laaj ndimbal te yéen ngeen jël alalu réew mi tëj ko seen kër Farba Ngom ngoma nga ne ay toni toni toni ceeb la jël tekk si ay magasin ah ngeen di liggéeyal askan wi askan wi di gën a xiif yéen ngeen di gën a nekk ay milliardaire kon loolu moo leen di wan ni ay sàcc ngeen boo fi doon indi pantere preuve du tee yéen dañ leen di wulli force ñu putti leen ba ngeen set alalu réew mi ngeen def mu jeex tàkk ay preuve ngay wut dajaleel ay preuve xam ne askan wi yeewu nañu wallahi azim daa ngeen rembourser lépp jusqu'à dernière centime waaw sàcc yi ngeen yéen Marème Faye Sall mii di setal boppam Marème Faye Sall mii day setal boppam wala ni moom sàccul alal ju ñuy dégg yëpp mi ngi koy jox askan wi la askan wi la koy delloo Marème Faye daal day setal boppam defu fi lenn lu dul setal boppam defu lenn lu dul boppam su ngeen taxawoon ci soxla askan wi wallaahi demande sociale yooyu doo ko gis da ngeen taxawul si soxla askan wi si seen soxlay bopp ngeen di taxaw matu leen vingt personnes accaparé réew mi jël alal lu réew mi yëpp ni ko tooñ ñii ngeen ne di daggal ay téere ñii ngeen leen di jox ay milliards ñii ngeen leen di jox ay marché fictif ñuy sàcc alalu réew mi ah ngeen nekk fi ay preuve ngay wut gis ngeen yéen bu ngeen àggee deux mille vingt quatre rek sant leen yàlla bu baax nee naa leen amu leen chance parce que jeunesse bi ngeen tombeel moom moo moo leen xañ chance amu leen chance par force da ngeen nuy abal wallahi azim te yéen ñëpp kenn du rëcc su yeboo nga génnee ay preuve su yeboo nga génnee ay brouetu preuve wallahi alalu réew mi daa ngeen ko goqi barke rasulullahi daa ngeen ko goqi waaw def leen seen bopp ay milliardaire yar leen ay nag ratti leen ay meewu ganaar ratti leen ay meewu bëy ratti leen ay meewu golo yéen a xam jaay leen ay meew yi leen neex mais un jour viendra deux mille vingt quatre parce que alxuraanu karim daa ngeen goqi alalu réew mi waaw bu yemoon génnee ay preuve fu la neex waaw mais daa ngeen goqi